waaw waaw. <laughs> mais Malick Gakou li nga bëre keroog doy na wa. waaw noonu la la moom noonu la des fois da ngay da ngay nuyu bees quoi waaw. mais keroog fi ñu la yegg man moo ma jaaxal quoi pour man ñàkk nga combat bi. waaw gars la jaaxal rek mais man jaaxaluma ndax ñun dañoo jàng bëre dañoo teel a jàng bëre quoi bu nekkee xale ba léegi ñooy si kon ñun bu ñu demee ba toll fii ñu egg si làmb foo xam ne dafa sori ñuy tiit rek wala ñuy bàyyeeku di daanu rek boobu mooy loolu dootuñ kon bu laal lim sori maanaam lim sori ci sa yaram yow tiitoo jaaxle woo ci biir. non non non non non non non c'est pas la première fois man sama combat Tonnerre 2 sama combat euh, Petit Niang sama combat yi passé yëpp noonu la mais ñun ñun loo lu ñu gën a bëree luñ mën a luñ mën a egg si ñun sax duñ duñ tiit quoi luñ loolu luñ tiit si bëree. nga daan depuis lors est-ce que wax nañ la combat wala wala adversaire. waaw ñu ngi ñu ay combat nag waaw ñu ngi comme ñan. mais non garaawul dama bëgg mu sotti mooy daal jarul ma koy wax. ci kan la nekk. ah ci kan la nekk. man si sama xel man sama si ñi mu nekk mooy ñoom Modou Anta ñoom Diène Gaye si ñoom la sa Moussa kii nu mu tudd euh, mu tudd Modja. Jabu Yoff ah. kon Modou Anta nga wax Diène Gaye rek moo Jabu waaw. kon ñooñu laa war a bëreel. da ne làmb boole na la ak dégg nga ma. ma ne da ne lamb boole na la ak ñoom. waaw ñoo lamb ñoom la ma booleel ñooy ñooy ñoom laa war a bëree si ñoom si lamb 16 combats laa def 13 victoire ñoo ñi mbër yi ma daan man nekkul ñu ñu génn si lamb mbër yu ñu xam si lamb laa daan mbër yu mag laa daan ay mbër yu yoo xam ne ay mbër yu am palmarès laa daan daanu ma ay mbër waya waya daanu ma ay mbër yu yoo xam ne kenn xamu leen wala yooyu noonu ay mbër yu mbër bu ñëpp xam laa daan gars yi ñëw ñu bëre ku si ñëwul nag sa la mais man en ñu war a bëre dinaa bëre ñoom. salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi Njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram Njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa Njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa ji